fetlu suñu bànd ak yéen ci biir Sunugal 24 mbokk yi asalaamaaleykum alekum leen ak jàmm ci bile jotaayu xibaar ñu ànd ak yéen jukki leen ponk ci gën a dañu koy doo rek accident bu méttee métti bi am ci yoonu Kébémer ab couple bu doon jugee euh, Kébémer di ñibbisi euh, ci euh, Ndakaaru ci li nga xam ne moom moo di tabaski bi ci la ñu dal di defee accident ba ñaar ñi ñàkk ci seen bakkan mu di Souleymane Fall ak Ramata Sène di ab couple seen jumeau yi nga xam ne ñoom la ñu àndaloon te ñu am ñoom dañu ci am ay gaañu gaañu yu méttee métti bu ñu sukkandikoo ci lu ñu fësal ci seen ay jegeñaale ñoom seex yooyu dañoo am ay traumatisme yuy firnde rek ne jamono ji seen xel àndatul ak ñoom ñu àddu ci leneen mbiru euh, Cheikh ñas euh, di directeur général bu Walf TV bi ñu doon jiiñ ne dafa takk ñaareel te mu dal di koy miim ba mu set wet ci weccite kenn ci li nga xam ne moom moo di ñi nekk ci Seneweb amoon ci ay jafe-jafe ba xaw tuut ñu dal di ci tekki ndombool tànkam loolu nag dal dinañ xëyaat tey indi li le coow ba wax ne ki ñu doon tuumaal Cheikh Niass ne daf ko takk ab ñaareel dal dinay am doom ba dal dina ñuy dëggal ne takku suuf boobu ñu doon wax Cheikh Niass ci ab ñaareelam lu dëggu la ñu dem ca Yëmbal Nord benn policier la ñu fa dal di teg loxo ginnaaw ay tuuma yu ñu teg ci am ndoddam ak li nga xam ne moom la doon jëflanti ak ay nigérien doon jël ci ñoom police ñu mujjee nag daal di fippu ba daal di def seen ab mars ba coow yow mujje ca kanamu yoon ba moom mi nga xam ne moom moo di policier bi daal di nañu koy teg loxo ca camp Abdou Diassé Kunkande mi xar géej gi te ñuy am yaakaar ne dina ci dellu ginnaaw ba léegi fa mu tegoon tànkam gi ko ginnaaw bu mu jokkoo ak suñu natango yi yu Sen TV ku ci mel ni Alima Ndione ak Cheikh Sarr Kunkande nag ay kàddoom dafay dëggal rek na ba tey bisub tam xarit moom dafay daal di xar géej gi joxe na li nga xam ne moom moo di heure bi muy sàkku ku nekk daal di fay daje mu di fukki waxtu ak juróom ci ngoon ba noppi daal di am def ay révélation ci dem demuk Mame Matar Gueye ca këram te askan wi doon samp ab laaj ana lan la Mame Matar Gueye di wuti kër Kunkande moom Kunkande wax na ne Mame Matar Gueye ñëw na pour ñaan ko ngir mu bañ xar géej gi waaye ala kulli àll bisub euh, tamxarit dafay euh, xar gi ñu àddu wax ci langu politique gi ak Amy Mbacké Thiam di ancienne athlète championne du monde dal dinay fësal nag li nga xam ne moom moo di euh, décision bi mu jël ginnaaw bi mu bokkee ci APR ay at moom ami Mbacké Thiam fësee ne naa jël li nga xam ne moom moo di maire bu Paos Koto ngir nag jàppale askanu fa nekk ci euh, tabaski ba ca ëllëg sa la dal di amal ab meeting ca goxam ngir nag dal di sàkku ñu dal di koy jox seen loxo ànd ak moom liggéey ngir mu mën a jël mairie ba dal di liggéey fa nga xam ne moom moo di euh, Paos Koto ci ànd ci ak njiitum réewum Sénégal ak ñi nga xam ne ñoom ñoom la bokkal liggéey bi euh, mu di waa APR ñu àddu wax ci li nga xam ne moo di tolluwaayu mbas mi ci biir réew mi ak mesure barrière yi nga xam ne askan wi dal di koy respecté ni kii tey nag ndakaaru tàng na te métti lool ginnaaw takk der yi nga xam ne ñoom dal dinañu jóg nag ngir askan wi respecté mesure barrière yi ngir dal di takk ay masque lu ci mel ni marché yi ak oto yi ak fi nga xam ne ay nit dañu fay dajaloo rek wàcc nañu fa di forcer nit ñi ñu dal di takk ay masque ba am na ci ñoo xam ne jot nañu leen a teg loxo ñu dem ca ngara Vélingara Tunke benn xeex moo fa dal di am ba mu mujjee jur faat bakkan ginnaaw ñaari euh, frère yi nga xam ne ñoom ñoo doon euh, xeex ci région bu euh, Tambacounda kenn ki dafa mujjee faat moroom mi ki nga xam ne moom moo faat nag yoon dal dina koy teg loxo ñu dal di ci ubbi ab enquête ba noppi fa yéene amal ab autopsie ngir mën a xam ci yan circonstance la frère boobu faatee ki nga xam ne moom moo di frère ñu wax ci accident beneen bu am ci. fi nga xam ne moom moo di ci diggante Linguère ak Matam benn oto bu dal di mbëkk beneen oto accident bu métti metti ba ñaari nit jotee ñàkk seen bakkan ci saa si juróomi nit dal di ci am ay gaañu gaañu yu métti métti ba jamono ji. mën nañoo wax ni que ñi ngi euh, Sowétas ngir ñu euh, saytu seen yaram ñaar ñi nga xam ne ñoo ci ñàkk seen bakkan seenu ko néew mu ngi ci morgue ba ñeneen ñi nga xam ne am nañ ci ay gaañu gaañu ña nga ca l'hôpital ngir ñu dal di cay def la ca war ñu àddu wax ci li nga xam ne moom moo di euh, gang bi gendarmerie dal di démantelé mu di ki nga xam ne moo ko jiite di ab ancienne footballeuse ca Caaroy Azur ndi wuyoo ci turu Ami Sène aw turam ñu dal koy ràññee moom nag moo daal di jiite woon boobu boobule a ginnaaw butigu Ibrahima Diallo bi nga xam ne moom la ñu doon dajji ca yi Azir ba jël fa ab télé ak lu tollook 950 000 yoo xamante ne ni moo jur lii coow ba tax ñu daal di leen di teg loxo ñoom ñi nga xam ne bokk nañu ci agression boobu yëpp yoon daal dina leen di teg ñoom ñëpp ñu ngi garde à vue ñu wax ci li nga xam ne moo di suñu làmb ak Gaston Mbengue combat bi muy tëgg ci diggante euh, Balla Gaye 2 ak euh, Bombardier 31 juillet gi ñu dëkkmal bu ñu xoolee euh, li nga xam ne moom moo di place ya nekk ca arène nationale te mu toll ci ñaar fukki junni ak ñeent yoo xamante ne ni lépp ay place la daal dinañuy def ab xayma nag ginnaaw décision bi nga xam ne moom la bay ngi jël ci lu ñel boobu li combat à huis clos lu tollook juróomi junni place rek la ñuy daal di bàyyi ñu dugg ba nit ñi ñi ngi wax ne li nga xam ne moom moo di bie yi dina cher te métti lool ginnaaw juróom junni place rek la ñu bàyyi bu ñu sukkandikoo ci suñu làmb mi ko koy xamle waaye li nga xam ne moom moo di prix yi ñu jaay yooyu les billets ba tey euh, fësalaguñu ko mbokk yi xarit lii mooy euh, lii nga xam ne moom lañu leen doon dëgtal ci ay xibaar euh, fii lañu koy ndar keppe di ñaan ngeen di wéy suñuy programme di leen ñaanal fanaanum jàmm te leen di jox dig daje ëllëg incha allah.